mbokk yi mbokk jullit yi téléspectateurs yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fa tabarakallahu di leen ñaanal kooruk jàmm di ñaan yàlla koor gi lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul waaye ñu ngi ñaan yàlla mboolem bàkkaar bu ñu amee woon yàlla na ko yàlla fóot ba mu set wit ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla dolli leeru njol màkk ci sunuy xol ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi ñaanal leen jàmm sutura xéewal ñu yàgg fi lool ànd ak wér ndax jàmmi Sénégal ci seen loxo la nekk loolu la yàlla dogal wa anna al fadla bi yadillah yuuti man yasha wallahu zul fadlil azim dem ba nuyu suñu papa suñu xalifa suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour Ali xalifa di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal yàlla yal yàlla guddal fanam yokk wéram jëm ba Louga nuyu Thierno Bachir Tall fa tabarakallahu ziar ko ñaanal ko yàlla gudd fan gu ànd ak wér waaye dem ba Touba ziar sëriñ Mountakha Mbacké ak mboolem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi ziar lañ ñëw ñëpp di la ñaanal jàmm sutura xéewal yàlla nañ ko buur yàlla bool defal waaye nuyu suñu kilifa Thierno Hamidou baan di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg yàlla na ko yàlla yeggale ci daraje Seydina Muhammad soxna Yumma Ba waaye nuyu suñu technicien bi alxaaji Samba si nga xam ne image yi bu rafetee leer moom la tabaarakallahu ci liggéeyam bu rafet yal yàlla sàmm ko yëkkati ko ci daraje sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dellu siwaat ak yéen seen émission Madhoun Nabi ngeen ànd ko ak seen soppe seen xarit al oustaz Alioune Faye jàmbaari sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ma dalal turandoo sang-sang yi tabaarakallahu seyd alxaaji malik macha allah di tàggatu sayduna muhammad man ko lool waaye di ko def ci anam bu rafet فتبارك الله دي سما خريط دي سما صوبي موم لا دلال تاي ما اند غروبم فاسين نيو بيغل تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاج مالي ما نغلي نوي دي زياره وعليكم السلام ورحمه الله استاذ ما نغلي نوي بو باخ دي لا زيار دي ام ديكتي اك كونتانتي بو باخ تي بلاتو بي تبارك الله دي نوي نيما اندال سما فرير عبد الرحمن اك سما خريطو بوب صح لاي واخ دي Serigne Khadim. Mhm. Mortalla moom sama doomu ndey la. yàlla indi sa moom ñun ñaari ànd. est-ce que tabarakallah ñooñu. ñooy mhm. samay nit. Mhm, ñoom fu may dem ñoom lay ñoom laay àndal. waaye nag di la nuyu. di nuyu bu baax ki nga xam ne mooy. mooy mooy njiitu tele bi. tabaarakallaahu loolu moo nekkoon kàddu yi di nuyu suñu xalifa Serigne Babacar Sy Mansour. di ko jiital ci nuyoo bi. tabaarakallaahu ak mbooleem maam ko Seydi Hadj Malick yëpp. tabaarakallaahu. tabaarakallaahu Hadj Malick. nuyo bi am na solo kontaan nañ bégg nañu tabaarakallaahu di la ndokkale nag ci weeru koor wi macha allahu man ñi ma ci yërëm mooy suñu mbokkatu tukulóor yi ah. ak joolaay ak njuufeen yi tabaarakallaahu xaj mortaala maa ngi lay nuyu di la ziar fa tabaarakallaahu di ziar oustaz Jabel di sama xarit di borom xam ma koy déglu di ko safoo maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax nga jàllal mun ni nuyoo beeg ziar bi ci moom xaj Maalik kon dañ lay bàyyi nga tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لا بقلب عارفين إمامنا ثم صلاة وتسليم يفوق على مسك ورد على سلفة والخير والقدر وصلي أنا يا إلهي وجدي أنا أمان وسبع عنا محمدا يوم قدر سقسي للعدي مالك نوايا القدم الوزن وإنه إسحارا دلاه نسعتنا عبر من نور نورنا بالعالمين صلي وسليا يا إلهي وجزينا بالصبا الله محمدا المختار في الخير أي الانتبه إن العوالم ليها وصافي لها عسيعة للناس والنفس والنظم وسلم وتعالى بنا وصلي يا إلهي وجدي أنا مصطفى أنا محمد المختار في القيرة أي مصطفى في عالم الملك والأرواح تعالى تابعة لروي والجسم هذا غاية الكرم محمد ينتمي وسلي يا إله وجزي يدق لي أن محمدا المختار كسوف ينتمي فوق في عالم الملك والأرواح تابعة للروي والجسم هذا خاية الكون ينتبي وسلي يا المختار تصب التي بدفني لق في عالم الملك والقوى أرواح تابعة لروي والجسم هذا غاية الكرم مصطفى وسلم يا إله وجزيا أبدا يودك لي أنا محمدا المختار في القيم وكان معتجبا من قبل في الوجوب يسبح الله فيها خير ملتزم وصليا يا إلهي واجزيا ما نهنا لغيت إلا اللغيت مولوها كان معتدبا من قبل في العجوب يسبح الله فيها غير ملتزم وصليا يا إلهي واجزيا عبدا أن محمد القدر في الأمور مودا في لتاتي مولانا بلا زلم وصليا يا إلهي وجزيا عبدا محمدا لغيجيا كل عاسى تسبيحا يقوم مودا حتى بترتيبها حسنا يا إلهي وجزيا مولا عنا محمدا لغيتي فقدرة منة من قبل مولا ورحمة وسعادة لمستلم وصليا يا إلهي به وجزيا محمودنا أن محمدنا لغيت يلن وكرامة بعدها في الحد مودا حدية ونبوة فلا تئمي وسليا يا إلهي وجزيا مودا عنها سبعة المولى فيها تمام لذات الدرب فاعتكم صليا يا إلهي وجزيا ويلنا أن محمدنا لغيتي وخاتي العبور يا عبي مودا جميعا من نسرة والعب والرحمة Maria رب الورى طاير في طير الزيامي رب الورى طاير في طير الزيامي عفا طائرا في الين ابدا انا محمدا لغيجي وكان سيس وسي العسل المنتقي مودا من قيرة الكرب يا إلهي وجزي أنا نعم. أبا أنا محمد كسب يلتي بلغتك من قيلة الكرم قيلة الكرم قيلة الكرم قيلة الكرم قيلة الكرم خيرة الكرم خيرة الكرم الكرم قيلة الكرم قيلة الكرم قيلة الكرم من خيرة الكرم ومن خيرة الكرم للخيرة أجدف لغة حتى انتهى بسموس النور منطقي مولى لخارة العرب في عبد الله النصر الكرم للغيرة الكرم خيرة الكرم أجد فللي لهو خير سيس فما تأتي منفرد مودة العواء تكريما نور الخير مطاع مولى من خيرة الكرم للخيرة الكرم خيرة الكرم وجنب لقوا وسليا يا إلهي وجدي يا بابا مولا عنا نعم محمد أنا المبتدى بالقيد وسليا يا إلهي وجزيا ويلنا عنا نعم محمد أنا المختار بالقيد محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من سكوى إلى الله كربتي فما علي خير الله جابر كسرتي وقري الباب الخير mm-hmm. يا ربي لم يغفل لسعاك زرقنا نحو بابك وجعتي فأنت الكريم فالكريم من اتجا إلى أبابي يا من على كل نعمة فأنت عليم يا صبور لمن جواي مصاب فأنا عبد جئت بادي زلتي فلما دنونا من سنة البدر وانجلا لنا ستر حتى أصال من ما بيا لين رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق سما ساميا هو دوات العظمى يسل بسلي يمن بلا عمل ويكفي المعاسيا هو منتعى مد وفقرا وصعودا هو المرتجى يوم يزيد النواسيا واو الملبى ألست بربكم بوعوبا هو الروح والرحمن كان مناديا وقد قاس في أروعين مسبعا مسبحا وجع عبب عور عصرة متدانيا وكان نبيا بنبوة عالما مميتا محمد صلى الله عليه وسلم وكأن بين الماء والتين ساويا وعدم بين الماء والتين ساويا وعدم بين الماء والتين ساويا الطين ساويا وعند الذي خصص كل محبة صلى الله عليه وسلم ولم يك ساك الوقت خيرك باديا كتمدنا إن له لدى من عجاب نور كان حجابه وبالكبرياء أصبح باقيا لو العبد والإجهاد جل جلاله والإمداد من فضل منير النوايا ولولاه لم تدريحي خلقت قدره عبيعي فتح الله كنوس الواديا تقلبت في اصلح عبيد من سلو سعادين إلى صدر مد كراسي يا ربي سلي على المحمود سيدي واقبل سماعت وفينا والمنود يا ربي سلي على المحمود سيدي مولانا واقبل سماعت وفينا أجنب للي واقبل سماعت ندمر سمعت بنا ولم ندمر واقبل شفاعة ولم فينا فينا ولم ندمر فينا ولم ولم ندمر سوريا الصوبي دينا فنتوي دي كان شخصي احمد تيان سريف كان يري قدم الولايه مقطوع منصر لولا الرسول لكان الشيخ سيد أحمد تيان هل معنا إلى تعبي من ما وإمعنا إلى جرجف بي من ما سايا ويتعمي من مسايا layla jërëjëf mbay min maasa xaliba way alhamdulillahi hasa sayxu rabbaawo xayrul wujuudi la si oh, alaawo mawlaawo waylan manayla yaa way maasayaawo way manayla jërëjëf mbay min maasa قلبا ويربى بلا خلوة قلوة تنعساب علنا العد تستحموا على الله من عاب وي ويلا ما نايلا تبي بالمساء لا جرجف بي من مزايا حليبا ويسقي المريدين من كاس الوصول إلى لعب المربي الذي قد كان معواه حليبا ويسقي المريدين ربي الذي قد كان مأواه خلما وينا للخلافات قد ساءت ولادته أعداء وختم من الرحمن والجاه خلما وينا للخلافات وقد ساءت وراثته رخعتا ختم من الرحمن والجاه خلفا ويا من الرحمن والجاه ويعتا وختم وختم سرج بابا كرسينا عتا ختم من الرحمن والجاه سقطي ختم الولاية مكتوب سرائيل لولا الرسول لكان سيخوتي وقتك وعاد والجاه واوي عطا ختم سرين بابكر سينا عطا ختم من الرحمن والجاه سقطين الختم أتى ختم من الرحمن والجاو أتى ختم ختم سند بابكر زنا أتى ختم من الرحمن والجاو حلماوي أو حسب وابن في عباق مذهب للا حسب أنها صغر في جدوى ويفيها مقيم أميرا لا أسبى الناس غرقا في جدوى أتنفلني في جدوى وفي جدوى قتي تنسرنا بما قم في جدوى في جدوى وفي جدوى خليفة باب كرسي جل نملة في جدوى سيخ الخليفة باب كرسي جل نملة في جدوى أويكم صب السجد باب كرلغ يتكو في جدوى وخلل الحاج منصور بورم بالخوم في جدوى أتممد منصور البي منزول وغلا عرفت الورى سرقا وغربا ولا على نمذيغة المنصور في سائر الورى إلى سابق الأقوام يوما إلى العلا يكون سن ميمن يا من يؤمن وخلل تولى الجلالة صبرا قلبكم سلما يا مجيب القوم سود سود سود والبيادين محمد منصور اي على اجي منصور وما يسد بي منصور مولد وخلل تولى الجلالة صبرا قلبكم سلمى يا مجيب القوم سود سود سود والميادين محمد منصور الحاج منصور باي باي حسين باي منصور وخلل رنگو غنينجي يا رمو مرقة مودوك يا مجيب القوم سود سود سود والميادين خليل محمد من alaaji Mansour mooy baay sëñ Bay Mansour ma ñu uufal baay xalifa way summa salaatu tasliimun yafuuq walaa fil bariyati xaqan mataayaa أهل النها واللها والكل يخشاه بارك الله خل سيدنا ما شاء الله تجنجن سيدنا محمد ويبكنجن شيخنا التجاني برزق المكتوم تاج العارفين ومد كل أولياء الرحمن يالنا يالا فايلين حاج مالي كونتان نانيو كونتان نانيو باخا باها باها فتبارك الله ممن لنك نجي تيوي ركور wéru koor xam nga way ci wéru tabaarakallaahu waaye Seydina Muhammad dina leen teg loxo incha allah weer wi nag doon weer woo xam ne weeru ngëneel la weer la boo xam ne yàlla daf koo jox Seydina Muhammad ngir sëva xeetu Seydina Muhammad salaa sallam yàlla bëggim bëgg rasulillahi da ko daf ko wane fépp mën naa wax ne yàlla daa farak ñun dëgg la de waaw lamma daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusuli kunna akramal umami ba yàlla wooye wooteem ga ne na ko ñépp jaamu wéetal ko waaye nag mu jaare ko ci sayyiduna muhammad mi nga xam ne lu yonent moo la gën ci la ñu nekkee ñun xeetu sayyiduna muhammad gën xeet yépp sallallahu alayhi wa yàlla neewoon na ko ibrahima alayhi salaam bu nekkee sama xarit yow sama soppe nga تيونت يالا محمد نين المرء مع من احب نيت كو نيك بو يوم القيامه كيغا بغ سي سا خول يني بوك لوز ما سي بير الجنه موتا مرتال بوي فا فا وال كولا نيه واي بوي بغ بغل سيدنا محمد باسكو بغ نجول ماك بارك لا خادم خادم بو بغي رسول الله لو دوغ يالا باركيل كو بو بغي سيدنا محمد يالا داي خول بوت يرمندي soo bëggee Seydina Muhammad yàlla sol la ay leer alaaji Mansuur ma ko wax yaa ngi ko doon woy léegi kon bëgg Seydina Muhammad mooy lépp yàlla nag bëggam gi mu bëgg rasulillahi mooñ ca jiitu moom yàlla wane ko ba mu fës jël weer woo xam ne benn yonent mosu koo am mu jox ko Seydina Muhammad muy weeru koor muy weeru koor nga xam ne Ramadan li muy tekki mooy لحق الذنوب رمضان لي تيك موي لي لك بكار بام بام دون دوم موتاخ سيدنا محمد ني ييم نما جاخال نما كيغا خامني وير كور نييو نا با جال تا كين جيغلو كو اي بكارام بوكنا سي نغي لي وير كور نزل فيه القران الكريم القران الكريم يالا نكو واتي تي وير كور تقول فاتنة سامم سيد الحاج مالك نينا نعم، سترندو نينا سكتفل تي رسول الله فيني كوي خامه موي نيغا بغي القران دغلا <laughs> بوني بغنا نيول مكه تا دو جانغ القران الحاج مالك نينا سكتفل تي رسول الله فيريفيه كو خولات كو دسنا بسم ان القران هو

bu yàlla dee wax ba utiliser inna la muy wax def koo ñor Seydi Hajji Maalik ne inna alqur'ana wér na péng ne alqur'an bii huwal mizaanu mooy balance bi ngay nattee taarifu di nga ci xamee ci alqur'an maa xawayta li nga làq yow alaaji Maalik min al aswaaq ci ay cofeel wa sadami ak cofeel nee sa cofeel ci rasulillahi soo ko bëggee natt ba xam fan la toll nee na alxuraan mooy nattukaay ba. moo tax Cheikhu Tijaani radiyallahu taala anhu ne képp kuy sama taalibe jàpp ci sama tariixa farata ci yow chaque jour nga jàng alxuraan lu mu néew néew néew ñaari xisib mhm. waaw ñaari xisib bu dee chaque jour nga jàng ko weer wu nekk nga wàcc kaamil bu dee weer wu nekk nga wàcc kaamil waa soo dundee at ñaata kaamil nga wàcc du ak ñaar waa fukki ya kaamil ak ñaar boo ci dundee 60 ans ñaata kaamil ngay wàcce xanaa kaamil yooyu yow mën nga caa dem aljanna say mbokk dem ci aljanna say waajur dem aljanna say goro dem aljanna ña sopp ñëpp bëgg dem aljanna moo tax bu cheikh ne kuy sama taalibe yàlla nangu lak sa sama taalibe boo deewee ëllëg da dem aljanna sa papa sa yaay ak say goro say doom ak yëpp dañuy dem aljanna war nga koo gëm ndax limu làq mom tarixa bi mo bëri mo xamne boko utiliser jeufandiko ko jaare ko nin la ko waxe liñ lay wax ni sa lu tuti la ci لازم لوازمه تكفي لطالبه من المنافع في الدنيا وخراه سيغ بابكر دا وخون ne لازم bi boko jappé diko défé nimu waré doyna sëkk bu la nexé sax bul jël benen tour yàlla bul werde lénen waye jàpp ko rek def ko niñ ko bëggé doyna le seuk ci njariñu aduna ak alaxira takfi li taalibiha min al manafi fi dunya wal akhirah kon weeru ko ci la alquran wàcc shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan فمن شهد منكم السهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بودي ورس ngay jàng min ay min ay min ayamin ukhar bودي habs ngay jàng ñaari baax na hein yalla ne weeru koor wu tedd bii ci lañu wàcc alxuraan mu nekk loo xam ne dafay orienté nit ñi jubaleen jëme leen ci yàlla yàlla ne weer wi weer la boo xam ne da nga ciy jàngee ragal yàlla gis nga weeru koor ci la ñu war a jàngee yar sunu bakkan xaj mali mbaa yëg nga ne ku daanu bakkana la daan ah? ku daanu bakkana la daan parce que bakkan mooy mbër mi nga xam ne dafa bëri doole xoolal ba ñu jugee ci ba bi bi ñu defee xare badar ba noppi ak na xare ba mettee ak ni mu taree ñu ñibbisi njol màkka jóge nañ ci jihaad bu ndaw bi jëm ci jihaad bu mag bi ñu ne ko ma jihaadul akbar ya rasulallah mu ne jihaadu nafsi jihaad bu mag bi mooy xeex sa bakkan moo tax muhammadul bushiri waxoon ca burdu ba ne wan nafsu ka tifli in tuhmilhu ala hubbi rida sabba ala hubbi ridaa wa in taftimhu ani ridaa nag yan fatim way beeka attanul moo tax ñu xasaf ko dana bakkan ak xale bu ndaw bi nàmp ñoo yem gis nga xale mu ngi nàmp fekk feraloo ko du fer mën naa nàmp doon ponkal mm-hmm. waaye bakkan yi fekk feraloo du fer moo tax mu ne fasrif hawaaha wa xaazir an tuwalliyahu ndax in in innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi nee na mooy tandikul nag mu yilif la de moom sa bakkan parce que bu la yilifee dina la alak wala mu ray la parce que bakkan li mu bëgg mooy lu neex li mu bëgg mooy bànneex ta banex lu neex day tax do yegg ci yalla sidil Hadji malik bu demone ba bàyyi yap bàyyi nan soow bàyyi ceebu jën bàyyi yaasa ak ñom dama da ñom seen ak ñu neexé di dundé ay laaxu dakar ak ndox ah mais la pour yar bakkanam la woon mais amoon na lu mu lu mu defee misui amone lu mu njoñee ganar waaye daf ko bayyi ngir yar bakkanam motax tax xubbu shahawa day tax do yegg ci yalla mais ma dañ da dañ ci daan xex wéru ko na occasion la ci moo tax boo wooree moo tax sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر من ونك ومن لم يستطع فعليه بالصوم يونت يالا محمد دا فا يين زني yi xam nga jeune dafa am nek ci mom xadar mu ngi ci jeune doole mu ngi ci jeune kattan mu ngi ci jeune sawarte mu ngi ci jeune dara ji daw sa yaram ngay sport dama ko ñew boo dul woor jabar pour nga mucc du yomb nak bo woré xif mën ta and ak mooy yalla baye ibrahim saxu da wax nan xif mën ta and ak yalla metti mën ta and ak mooy yàlla mën ta and ak mooy yalla ni la daan yalla xam-xam baye ibrahim saxu hein kon wooral boo wooree dotala mooy yalla kon wor dafa am solo wor jël màkka nee na suumu tasixu woor leen ngeen wër motax bo amé jangoro jàngoro mu tëw wér taxool koor nga xol bokay taxo di wër hein motax yalla neena na sawmu li wa ana ajzi bi man yalla ma momé koor ta maa fay kon koor dafa bëri ngeenel bi ci njëkk daal ci ngëneel ci lañu wacc al alquran al karim mom koor ñaaral bi moy ليلة القدر تي لا نيك ليلة القدر خير من ألف شهر لوتاخ تنزل الملائكة والروح فيها وينك بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر موغن جني وير جني وير يو جامو يالا با يالا نانغول لا ليب لا نغا تي فايي كو ني تاكو boo jaamoo yàlla bisu laylatul xadir lan la cay fay moo ëpp te junni weer mooy quatre-vingt-trois ans quatre mois yu teg quelques jours loolu nga dund ko di ko jaamu yàlla yàlla nangu la lépp bisu laylatul xadri nga jaamu ca yàlla la la yàllay fay mooy ëpp doole junni weer yooyu loolu caaxaan la bisu laylatul xadri fan la nekk ci weeru koor yow may déglu nag soo bañee mu rëcc la bis bi nga umé jàppal ne moy laytul khadir gi ba keroog koor gi jeex donte ne borom xam-xam yi wuute nañ ci ma jël benn misal ci sunu tariha li tax tijaani jàpp 27 jours ben misal laa la ci jox bo jangé inna anzalnahu batul laylatul qadr trois fois la répété ci sar bi ta so calculé lettre 9 la lay jox 9 fois 3 27 dara du hasard. Hmm? loolu rek doy misaal ci ci ci ñuy jàpp laylatul xadr ci 27 jours waaye tamit du tee keneen ku hmm. jàppale ne nga nangul ko hmm. ndax ixtilaaful ulama rahmatun lil ibad wuute gi borom xam-xam yi yërmande la ci jaam yi ñetteel bi ci ngëneel yi mooy yaxfirullahu bihi zunub yàlla ci le bisu weer koor lay jéggale mboolem bàkkaar yi wax naa la sànq ci commencement bi nela njol makka neena kima na ba jaxal ma moy ki nga xamne wer koor ñëw na ba jàll te ken jéggelu ko ay bàkkaaram kooku ma jaxal man sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon wer la bo xamne awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa akhiruhu atqu min an-nar fukki fan ñeek yërmande la bo ci ñaané yàlla yërmande yàlla may la ko mo doy te ku yàlla yërëm tàbbal la aljanna yi ci topp njéggal la boo ci sàkku njéggal yàlla jéggal la te kat yàlla mooy jéggalaa kon bi rahmatullahi kul al xalqi qad wasiat min fajirin الواسعة من فاجر ومطير من فقير ومطير سائر الباري سمام سيدي عاجل مالك دا جانجل فوف جانجل مري jàngale na foofu njàngale mu rëy dana law kaana baabuka laa yaatihi zu isamin kon fa maa duayta gafuran kulla awzaari mu yëg ne li mu wax daa diis mu ne o oh, xaatabtu rabbi أتوت ربي من لا يليق بنا فاغفر لي عبد من law kaana bu nekkul woon baabuka sa bunt yow yàlla laa yaatiihi du ko dikkee zu isamin borom bàkkaar kon fa maa duayta xafuran ku la aw zaari bu fekkonte ne yow yàlla ku la too ñëw ci sa bunt ne la jéggal ma doo ko jéggal kenn du la woowee yaa xafaar mu mel ni dafa offensé yàlla mu ne o oh xaatabtu rabbi waxante naag sama boroom xitaaban waxante boo xam ne laa yaliqu bi naa jaaduwul ci man Maodo waaye nag faxfir li abdi min al asaami xayyaar yàlla jéggal ma bàkkaar yu bari moo ma not ba ma gëlëm ba tax ma waxee nii waaye jéggal ma waaye xam naa ne wa rahmatullahi kull alxalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin zahidin baari Maodo ne xam naa ne yërmande yàlla daj na kii topp yàlla daj na kii mooy yàlla daj na kàccoor daj na ku mën doon moo tax Mouhamadul Bouchiri waxoon ne mën na am bu ëllëgee bu yàlla séddale yërmande yi day xool kem talaay li ma yelloo mu jox ma ko bu fekkente da ngaa def bàkkaar yi tolloog paan yàlla sédd la paanu yërmande kay mucc nga dëgg la boo defee bàkkaar tolloog bërigo yàlla sédd la bërigo yërmande mucc nga boo defee bàkkaar tolloog kopp yàlla sédd sédd la kopp yërmande mucc nga moo tax mu ne mën na am bu ëllëgee bu yàlla séddale yërmande mu xool la la la ma yelloo la la gën ca man mu defal ma ko waaye nag ci weeru koor la ñuy jéggalee bàkkaar yi waaye nga déggee ci it ne bu fekkoonte ñu ñëpp dañoo àndandoo di jaamu yàlla kenn tooñul yàlla yàlla rey ñu indi ñoo xam ne dañ koy tooñ di ko jéggalu waaye nag bu tax ngay tooñ yàlla nag waaye daa fekk ne pour tour yàlla bi ñuy wax yaa xafaaru mën a fonctionné mm. faaw am ñuy tooñ mm. bu dul loolu yàlla day manqué te da yàlla du manqué wut moo tax yàlla moo xam li mu mën lu ne lu mu def moo xam ne ko lépp programme yàlla la ci weer wii lañuy ñuy jéggalee bàkkaar yi kon ñu guur lu ci ba yàlla jéggale suñu bàkkaar mu ne ci weer wii la ubbi buntu aljana yi buntu safara mm-hmm. kon nag ci dëgg-dëgg war ngaa mën a góorgóor ba fàggu aljana moo tax weer wii loo ci mën a jàng alxuraan doyul loo ci mën a julli ci yonent yàlla Muhammad doyul loo mën a zikkar ci laa ilaha illa allah doyul loo mën a zikkar ci astaghfirullah doyul subhanallah alhamdulillah allahu akbar yooyu loo ci mën ci lim ci weeru koor wi doyul ndax ci weer wi la yalla lay nangu tuub ci la yalla lay nangu jaamu yi lepp lu way ñaan ci la ko yalla lay nangu lepp ci wër wi la ko yalla di nangu <laughs> yalla du delloo dara ci wër wi parce que wër wër wëram la mom yalla nee wër wi ma man ko ci ma fayal sa bop ci wër wi kon nak war nañ ci mëna gor gor nak bi ci dess mu ne ci wër wi la yàllay goreel nit ñëpp ci safara kon ñu war a mën a góor na ba yàlla boole ñu ci ñuy gore ci safara kon sayyiduna Muhammad a ngoog lii lépp yàlla day wane cofeelam ci rasulillahi lii lépp yàlla day wane cofeelam ci xeetu njool màkka lii lépp day wane ne yàlla bëggul xeetu rasulillahi dem safara yàlla bu sañoon li bëgg moom yàlla moy sidina mohammed buy dem aljan ànd ak ay xetam ndax nak sidina mohammed niko yàlla bëggee niko yàlla soppé ëllëg yowmal khiyam aw xetam di dem safara yàlla di xol xam nga ne loolu gënalu yàlla de motax yàlla may na occasion bu nek ngir xet bi maa dem aljan kon nañu gor nañu gor góorgóorlu ndax ñuma dem aljan ndax kenn du Seydina Muhammad safiu fiina safiu fiina ku wax loolu gele mom Cheikh Al hadja mam Abdou nee Shafiu fina ki ramu ñun. Shafiu fina mam Abdou ne Shafiu fina ki ramu ñun ñun ya rahim wa najina ya rahim ya yow aji yow aji bëri ji yërmande way way wa najina yàlla nga mussal ñu. يوم اللقاء من أولي وإقامي ñu ngi lay ñaan yow yàlla nga yërëñu ca mucc musal ñu min hawli ci tiitaange ba ya sayyidal rusul kirami wa tajim arab bu ñuy woo dañuy woo ci yaa wala ñu woo ci ayaa wala ñu woo ci hayaa wala ñu woo ci yaa wa naadi tad'u bi yaa aw bi ayaa aw hamzatin aw ayin wa in shi'ta hayaa yaa يا سيد الرسل الكرام يا سيد الرسل الكرام Mune ko Ya سيد Rusul Kiram. Yo mi nga xam ne yaay sangu 313 yu tedd ya wataajihim te féete leen kaw kokoy kan kan man tasawwur rahman muhsanai mu ne ko nag mooy ki nga xam ne yàllaa ko jaglel ak tagg waaye ngeen ji tagg tagg bu rafet lool yàllaa ko ko jagleel ci alxuraanul karim wal fatxu jaaka mu ne wal fatxu fatxu ba jaaka dikkal na la. yow ma fatxi ka makkatan bis ba ñuy ubbi makkatal mukarrama bis boobu la fatxu ba ñëw. wa nasru bil ahzaabi qad waafaaka. waaye nag xaral ahzaab ki dimbali rasulillahi ba mu gañe ko mooy sunu boroom. Huudun. nee yonti yàlla Huud. wa Yunus ak yonti min baat a jamala ci sak taar yow ya rasulullahi ci lañuy tarto wa yusuf min diya sanaka way nak yont yalla yusuf limi muy taaru taaru ba ko xol xolat ko taaram ba mu ko jele ci taru ndol makka qad fuqta o oh, qad ca deug fuqta kawe nga ya ta ya rasulillah yaa al anbiyaa yi 124000 124 tour prophètes la wax الذي أسراك waay waay tudd naa sell buur bi nga xam ne moo la reñaanal yow rasulillahi wallaaw gin ñaa ci yàlla yow sayduna Muhammad misluka lam yakun ku mel ni yow dootu fi ne ci àdduna bii ku mel ni njol màkk dootu fi nekk gin ñaa ko ci sunu borom an wasfika suara nee na an wasfika ci jéem la melal assuara waykat yi yaa mudassiru yow mi yàlla wax yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir yow rasulillahi o oh, déggal ajazoo lott nañu wa kalloo ñu tële min sifaati ulaakaan ngir say melokaan yu kawe yow rasulillahi waykat yi jéem nañoo jéem ba sonn waaye li njol màkk làq ci ay melokaan yu kawe woykat yi mënuñu ko dajalé motax mu ne injil bu yent yalla isa ñewna na di xibaar yàlla di ko ci alquran wa is qaala isa ibn maryama ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad yent yalla isa avant muy dem dajale na ay njabotam ne len sama ginaaw amna na yonent buy ahmad lay tuddu su ñewé na ngeen ko gëm top ko taxamne diine ji complet ji moko yor njol makka tuddu ahmad ca kaw ñew su suuf tuddu ahmad yent yalla muhammad انجيل عيسى قد اتى بك مخبرا ولنا الكتاب بفتح الاولاك ما تفهم من تيري نيو دي تاغ كاوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما سيقول يقول أو ماذا يقول أنا لا يوخ مدونه maadixuuna tàggkat yi waykat yi. wama asaa. te wama asaa xawuñu sax. an tajmuu kutaabu min maanaaka. yi mënuñu sax dajale ay maana Sayyidina Muhammad moo tax at mu jot wooy bu bees génn kere ñu fent lu bees bay laa yawmi diin dañuy créé lu bees di ko créé di ko créé ndax ñu doon màkk ay melokaanam kenn mënu koo jeexal mu rasulillahi. lam yaqdiru saqalaani mu ne nit ak jinne mu mënuñu. يجمع نزرة أبدا يجمع نظرة أبدا دجل دغ دغ دغ دغ ليغا خا موم لا سيدنا محمد امين ومسو لو ادراكا وايت من منو ньо جوت دايو سيدنا محمد بك لي قليب موتاخ مو نيكو بك لي قليب امغا تي مان اسخول قليب مو تصغير قلب تصغير قلب مو قليب مو اسخول بوني فليس مو اسخاليس كتيب أستيري وإن أردت تصغير الاسم المفتخر إما لهواه أو لصغر فضم مبداه لهذا الحادثة وزد ياء لتكون ثالثة تكون في فلس فليس وهكذا اسم ثلاثي جاء <laughs> بكلي خليب منك أنك من أسخل مغرم يا أسيدي مغرم لدول قيس نين أنا مغرم بالليلة دنج ما مبرخان خم مبرخان خل بو خم دنج كو أم بتشافل بأموت فن فن فمجار نين لول ما مدل سيدنا محمد قيس من نين neen looloo ko daloon ci Layla wa saasatun masatun bi awaaka baarakallah Haaj Malick yal na yàlla defal la jàmm fa tabaarakallahu ñu bég lool kontaan lool wala fi naan li duuf ci nag bi xaju ndawul ci cin li waaye bu ñu ko daggatee ba mu sew def suñu filis der bu ñu nemee def suñu mbaxal fa tabaarakallahu kon bu ko defee dañ lay bàyyi kàddu gi eh, nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah te di la wax nag doyaluñu doy lu ñu te incha allah dañ ko biisaat ni nga koy waxee fa tabaarakallah bismillah waaw oustaz maa ngi lay sant bu baax di la gërëm tabaarakallaahu di rafetlu lii ndax lii daanaka yàggul ci ñaari fan lañ lañ ko waxtaanee tabaarakallaahu mu nekk loo xam ne nii moom lu rëy la ci man ndax yow dangay sama nitu bopp yow yàlla moo ñu boole bu yàgg ba tey yaakaar naa ne yàgg na kon kon yàlla na gën a yàgg tabaarakallaahu di nuyu ñi ma seqal plateau bi mooy sama mbokki bopp yi nga xam ne fu ma nit gis gis ma fa di nuyu nag sama wayjur tabaarakallaahu di nuyu sama jur wu jigéen sama wayjur wu góor te di leen ñaanal yàlla gudd fan ak weer tabaarakallaahu oustaz dama kontaan sama xol dafa feex di nuyu suñu kilifa ñun ñëpp tabaarakallaahu muy sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbooleem njabootu maam Seydi Hadj Malick gi di nuyu sa soppe sa xarit muy muy oustaz Ablaye moom ku baax la di nuyu techniciens yi di nuyu ñëpp tabaarakallaahu lii moo nekkoon kàddu yi tabaarakallaahu ustaas asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax bëgg nañ lool ci yéen wax dëgg yàlla ndax xatoon na lool waaye ngeen bàyyi lépp ñëw loolu nag seen baax la yàlla na yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura yàlla bàyyi leen ak seen baat ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax tagkat yonent bi baatam la am bu yàlla bu ko yàlla aaree rek lépp mën na sotti kon yàlla na ko yàlla aar sàmm ko ci daraje sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu